mbokk yi xam ngeen ne tey mooy le 19 décembre fii ci arène nationale Tapha booy ñaa wax naa leen ko wërëw a dem na këng waxi mag dem daañu li gis ngeen rang bi jëlal ma rang bi jëlal ma rang bi ki nga xamante ne mooy sama caméraman Nafi jëlal ma rang bi mi ngi noonu mi ngi noonu su ko defee ñu jege supporters yi sama gars yi. waaw ñu ngi lay jaar grand bi di wax ni tey moom Tapha Tine moo xewle bool bool bu mag bi mais Tapha ñi lépp lu ñuy mën di wax rek na ñëw teey déglu gan gi. sa waay dafa wàññi poids ngir lan ngir bëgg a juumloo Tafa. Mhm. Tafa du ko nangu duñ ko nangu. xoolal niñ ko jàppee ñoom waa Pikine. noo leen gisee seen bër. Tafa moom mu ngi ci forme bu baax sànq rek ñu ngi jokkoo moom. boo ñaan na ko ñaanu ma dara ci combat bi te loo may ma jël. dara du am ay la ñu yor ñoo ko moom dañ koy jël ay la lama ji ñoo koy dirisé ñoo koy fekk du ko daan ko du nga xàcc dara ñaanuñu ko dara li ma koy ñaan nasul ay tànkam rek wàcc comme contre Elton. barki Sëriñ Fall booy bi xale la ta day dem. bu xeexee mi ngi ci kaw Ama Baldé ak Modou Lo incha allah ndam rek. ayca daw ci terrasse du sori booy ñaan na xam ne daw ci terrasse du sori. taw daw ci terrasse du sori. taw ci terrasse. du sori de. sori ci kanam. loolu ay olof waa waaw noonu la di wax xaar ku dégg séeréer xaar ku dégg séeréer. ayca ayca umulaay topp ma umulaay topp ma waa kër booy ñaa ngi nii. i doomu dégol ji lañ wax. ndax ñun xam nañ papa Coli ji. waaw borom fils de bu jeexee rek jeex na. Tapha Tine du pour ñun dañuy bëre daan ko jël Balla Gaye ñun Balla Gaye moo ñu tax a jóg mais du pas Tapha Tine. déggu ma Balla Gaye ñu mais pas nga sax sàqamee ko. pirip dib nu mu def daanu. Tapha Tine wax laam si làmb ji. Tapha Tine wax laam si làmb ji waa bi soufflé dina xam ne lépp dëgg la. waa bi soufflé dinañ ko duma dinañ ko daan. booy ñaar ayca diggante Boy Niang ak Tapha Tine nekk la nga xamante ne bii du yomb lan ngay wax yow. xam nga moo ah loolu li ñoom li ñu teg lépp dëgg la làmb la mais làmb tamit amateur yi nga xam ne ñooy dagg seen i billet ñëw ca suba normalement ku dagg sa billet war nga mën a dugg bàyyi bàyyi rang bi rek fa fas yéene fee taxaw ba yombal xiyaam. kon yéen yéen a ngeeg seen billet. ñun ñoo dagg suñu billet tey amateur lañu amuñu ñu nag man nag. dama ñëw pour amateur man ak samay nit pour seetaan mais nag te suba ba léegi ñu mën a taxaw dagg sa billet xaay bu weex tàll te mënoo dugg ci biir loolu tamit dañuy xaw a métti te xuloowuñu ñëw pour seetaan wax li leen métti. dañuy wax lu lu métti waaye nag ba may ñaan yàlla tamit tafaatin yàlla na ko yàlla may ndam parce que man guy gi laa man guy gi laa xam. yow guy gi mooy waaw on a le Thiénaba waaw bi dégg nga wax bi Samba Sadio la maamam demoon dégg nga wax bi. bal yi tàkk fi yooyu tàkk mu ne Issa diine lam yàggul falaa kaana fi dunya wa samaay bi ardi wa samaay waxit waxit ayca mi ngi noonu yaakaar naa amateur yi amateur yaa ngi noonu amateur yaa ngi noonu affaire yi man yàlla koy booy ñaa yàlla ko yàlla mbay ndamu seddu guy barke Seydina Mouhamed waaw non non affaire booy ñaa la mooy daan combat bi tafatin mooy daan tafatin mooy daan moo daa ko bëre daa ko xeex ëpp doole booy ñaa fii dafa mel ni ay supporters yu tafatin ñoo fi ëpp booy ñaa daa ñëw seetaan si du bëre du xeex du daan booy ñaa amul dara si combat bi lu dul ñëw taxaw di liwaatoo ba fajar Boy Niang amul Boy Niang doole bi combat amu si doole amu si supporter amu si galaaj dara Boy du daan affaire Boy la fii piki na ko moom tey laa mujj bi booy piki fii waa piki na ko moom tey ayca ayca gaa ngi noonu yaakaar naa waaw gaa yaa ngi noonu supporter yaa ngi noonu gis yaa ngi gis rang bi umulaay umulaay yaa ngi gis rang bi ñaar boo ñaa incha allah rabbi yàlla da koy may ndam boo ñaa la wala boo ñaa fi ñëpp waa boo ñaa la incha kan moo dàq bëre boo ñaa moo dàq bëre moo dàq xeex boo ñaa moo dàq xeex moo ëpp doole tafaatin gabarim la gabari bi day feeñ mais affaire bi boo ñaa la incha boo ñaa da koy may da koy daan ci kattanu yàlla affaire Tapha Tine man sama sama garaa moo may ci làmb bi len dong laa ko sant mu ñëw respecté ko jox ko cër jàpp ko daan ko nu ñibbi man bu ma nee coc dinaa ko daan balaa xeef ma ñibbi sama kër. bawol bawol yaa ngi man ànd sama sago ñëwal bul wax ak ñii bawol bawol yaa ngi nii. coc maanaam ka ànd ak sama sago ba nga xamante des ma laal bisik desul ma def dara loolu moom bu ma ko amee moom ci kattanu yàlla moom dinaa ko duma dinaa ko daan xalaatuma bëre xalaatuma xeex ndam lu set guy laay am bu neexee yàlla sunu bul wax ana waa Pikine ana waa Pikine ana càppaacoli yi mais fi amul càppaacoli xanaa dafa mel ni bawol bawol bawol bawol yi ana bawol bawol yi ana bawol bawol yi waa mais man mosuma gis lii ah mosuma gis lii ah laa ilaaha illallah umulaay ñu doxantu ba ca kanam umulaay kaay waa mais supporter yi Boy laa bëgg a gis ana waa kër Boy Niang non fii fii waa pi waa waa fi nekk wala waa Pikine waa Pikine wala waa waa waa Bawol. waa Bawol ñoo fi waa Bawol la fi nekk. waaw waaw waaw. ana waa Pikine. ana waa nii ñu ngi ko dee. nii. ana Coli. muy nii. nii. billaahi borom bu jeexee jeex na. yàlla muy nii billaahi. Kaasu Fonde. loolu kese la. borom Kaasu Fonde. dañ koy yàqal dina jël bosom. dégguma dina jël bosom. est-ce que xam ngeen saakaande. man saakaande dara day soobee ñu loolu. ñun fii la ñu dëkk fii suñu gox la fii suñu gox la. fii Pikine dox meew la fii. ici c'est Pikine. yee si Pikine. ayca mi ngi noonu ici c'est Pikine bëggee naa sama gars boo ñaar rek. yéen kañ ngeen ñëw stade. sànq depuis 9h ñu ngi fi ñëw taxaw di xaar. pour waajal ko mais rang bi moo gudd quoi. waaw daa gudd waaye instant bi nii bàyyiwuñu jaral na leen ko. billaahi booy ñaar rek. tafa rek tey dañuy daal di jéem door ko mu daanu 100% bawal bawal mu lay dañoo bi tafa mi ngi noonu coow lu bari na umulay coow lu bari na ñi ne tin la mais umulay jëlal ma rang bi kay kaay umulay jëlal ma rang bi jëlal ma rang bi yaa ngi gis dangay xool ba fa sa bët yem xale yaa ngi noonu rang ca 9 ba léegi ñu ngi ci stade bi taxaw ku ci nekk yaa ngi bëgg billet ngir li nga xamante ne bii mooy am accès pour dugg ci stade bi pour dugg ci arène bi mën a seetaan làmb ji mi ngi noonu xale yaa ngi rang tige yaa ngi jar nit ñaa ngi dugg kenn du Pape Thialy Faye borom Leewtoo production cey arène nationale tey bu ñu jullee timis ba pare arbitre suuf la génne diggante Tapha Tine ak Boy Niang wàcce loxoom ah lu doon jaay day lamb barki yonent bi ma nga noona cey umulaay umulaay yëkkatil ma sa appareil ma xool la nekk ca kanam oh cey Leewtoo production